ñun fi lañ juddoo fi lañ yaroo fi lañu màgge Bambilor mënuñu fi def lu ñaaw mënuñu fi def la ñaaw lu ñaaw mais bëgg cër nag warul tax nga yàq sa deru nawle dëkku fi sàcc la jàngul lii moo ko fi def te yow li ngay wax dara du ci dëgg c'est ça qu'on avait mis dans la tête ci suñu rakk yi jarbaat yi mais en tout cas vous les responsables qui du que këri souf yéen koy defal and ak seni rak ak seni Nous ñun ñu ñew jàppale len paré nañ waxuma mais suñu un espace nous allons construire le terrain de basket Nous ñu nar a defe ji fële ñu def ko fi ci bir këri souf projecteur am ay toilettes la nuit xale sax dinañ fi basket parce qu'il faut nous gëm que Bambilo doit être une ville le combat que nous avons parce qu'aujourd'hui, l'objectif des Sangal Kamwa, c'est d'anéantir Bambelor. Et ça, nous devons le refuser, nous tous. Leur objectif, moi, ils n'en parlent plus à Bambelor, une commune qui est née en 2014. À partir du décret de 2011, Taï Sénégal a tout de Bambelor. Mais ça dérange. Ça dérange. Et nous savons bel et bien que ça dérange. Ni me dérange, tous les moyens sont bons. S'appuyer sur nos responsables, des responsables du village de Bambelor, pour détruire Bambelor si nous arrivons à perdre l'arrondissement de Bambelor, si nous arrivons à perdre les recettes de Bambelor, aujourd'hui notre budget s'élève à 859 millions. Et on était à 1 milliard 400. Mais sur les 1,4 milliard, ils ont communiqué beaucoup de choses là-dessus. Chacun d'eux a le compte administratif. Qui a le compte administratif euh, Mais ils ont le compte administratif. Vous avez un projet, de un budget de 1,6 milliard. Mais nous avons dit nous avons 1,6 milliard dette. On se retrouve à 700 millions, 650 millions. C'est la vérité. Mais nous avons dit oui, 7 ans, 1,6 milliard, mais ce n'est pas ça la communication. Ils ont le compte administratif des recettes et des dépenses de l'année passée, des 5 comptes administratifs avec 5 budgets. Je vais les publier. Nous avons en prévision budget 1,6 milliard. On se retrouve à 600 millions. Nous avons une masse salariale de 242 millions par mois, par, par an. Qu'est-ce qui reste La prise en charge des élèves et étudiants qui tournait autour de 120 millions. Tu te retrouves maintenant avec presque 350 millions déjà dans le fonctionnement tu pars à l'investissement il faut qu'ils disent la vérité aux gens en tout cas nous serons à vos côtés la presse oui faites votre travail nous donnons la bonne information nous avons lu des gens mal intentionnés sont en train de vous essayer de vous décrier, de vous nuire dans les réseaux sociaux. Mais ils ne passeront pas. Parce qu'ils ils n'ont pas de. Ils n'ont rien à dire aux Sénégalais. mais wala ñuy publier publier non il faut le refuser c'est des gens qui n'ont aucune idée pour le développement de cette collectivité hein. de toute façon c'est pas pas un projet de la commune c'est un projet des militants et responsables de Kérissouf je vais être je vais être très clair c'est pas un projet de la commune mais moi à ma qualité de maire de Bambelor, je dis bien maire c'est pas dans le budget j'ai acheté ça à hauteur de 3 millions et les aider à payer. compte tenu que nous ñu bëgg Bambilor ce c'est pas un projet de la commune c'est pas la commune qui fait c'est pas un appel d'offres ça appartient aux populations de Bambilor qui ont mobilisé leurs moyens pour faire cet espace public et le dernier mot leur revient même bu qu'il dañu am kuñ koy ce c'est pas la commune qui décidera à qui on va donner le nom de cet espace public bienvenue Ah, lii tey nga gis boo ko gisee defe naa ne Bambilor moo daje mais këri suuf ñoo daje aussi ah, suuf nag bu dajee responsable këri suuf ñoo daje aussi ñi nga xam ne tey ñoo nekk si gannaaw monsieur le maire daje nag boole seen i doole a ah, benn pour euh, falaat monsieur le maire donc tey yàlla dogal aussi ñu am fi permanence boo xam ne tey jii a moom lañ doon euh, inauguré mooy permanence bii nga gis tey mu nekk suñu gannaaw tay yalla dafa dogal mom la doon inaugurer doon def aussi pose première pierre si place publique bi nga xam war nañ ko paré donc euh, place bi dañ ko def pour mën di fi dajé di fi nassé di fi noccé pour fexé flat monsieur le maire le 23 donc euh, tay mo waral tay suñu jotay fi donc ñu and ak ñun ñëpp aussi responsable keur souf yépp Ousseynou Gueye président Mansour ah Mademba Ndour Moustapha Faye Moustapha Sarr aw Faye ak euh, Lamine Ngom Mamadou Lamine Ngom ak ñu ñu àndal ñëpp moom ñoom paateek tout ak les jeunes filles ak euh, les jeunes dames donc ñoo ànd tey bennoo ah di nasandoo comme ni ma ko waxee di noccendoo pour rek falaat ah, monsieur le maire deuxième mandat tey loolu moo waral ñu tëji suñu bërëb bi di samit du si tamit woo quartier Mbambilor yëpp aussi parce que nag euh, defe naa ne xeex bi benn la ñun ñëpp ñoo bokk ay bëgg-bëgg dañ ko tijji pour këri suuf mais dañ ko tijji aussi pour bambiloor gépp tey ku am daje xalaat ne war nga mën a ñëw waxtaana ko fii te tey di muy lu jëm si jàppale falaat monsieur le maire tey permanence baa ngi nii ubbil nañ la bunt yi pour que nga ñëw defe ko fii donc daal di wax ne daal mbiru Bambilor gépp la mbiru këri suuf la mais mbiru Bambilor yëpp la. di rafetlu seen liggéey. Euh, par rapport ak place publique bi euh, ñun ñoo waxtaan euh, ñun responsable Bambilor ñu toog kër Ousseynou Gueye waxtaan ne à ce que fii ñu fii nga xam ne fi la oto yi gaare nan lañ mën def pour pour def ko ba mu gën on s'est discuté ñu toog waxtaan ne pourquoi pas mënuñu fi def place publique ñu xayma suñu biir xool taux bi ba xool pourcentage bi. naka lañ koy defee a ah, suñu biir dafa am benn technicien yi mooy le responsable Ousseynou Gueye mu coordonné ak euh, grand booy mu discuter moom pour benn plan mu defar plan bi bu mu defee plan bi ñu toog ñun suñu biir ñu nit waxtaan xool ba xool devis bi ba xam ñaata lañ war a mën a defaree plan boobu léegi bi ñu defee loolu ñu xam ni lii du lu ndaw moom ak indi ak ak xelam bu sell mu mu contacter maire. ne que lii moom lañ préparé lii lañ bëgg a proposé lii lañ bëgg a teg maire appuyé ñu si loolu mooy d'ailleurs li mu wax si discours am bi sànq ak lim si moyens yi mu si def après si leen ñëwaat ñu toog waxtaan ñu ne pourquoi pas loolu ñu waruñu ko mën a réaliser. noonu lañ lañ def ba dugg ci projet bi mu di projet boo xamante ni nag du affaire ñun jeune responsable Bambilor yi ànd ak maire mais jeune këri suuf yëpp ñoo ko bokk ñii yeewoo këri suuf ñoo ko bokk parce que su rafetee wala mun naa ba xale yi ñëw mën fi toog mën fi foo kon yaakaar naa ne ñun ñëpp ñoo ko bokk quoi. pour pour pour pour le moment mënuñu xam exactement ñaata la parce que au fur et à mesure ñuy dem. dañuy gis yeneen idée di changer di di di di am lu ñu si changer waat mais pour l' instant euh, pavage yeeg yooyu dafa tourner autour de trois millions cinq cent. kon yaa bu pour xayma mën a goo xayma exactement li ñu si war a def parce que am na banc yi war a ñëw ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne war nañ ko si def lamp yi ñu war a defaat foofu ba mu leer tout ça ak koko yeeg yi ñu war a organiser xam nga loolu pour le moment mënoo xam xayma ñaata la mais en tout cas ñu ngi tàllal ñëpp loxo ñëpp ñi opposition muy keneen ak keneen ak keneen mu ñëw jàpp si liggéey bi nga xam ne bu setee jeune u Keur Youssouf ñoo ñoo ñoo.